ndax nii sëriñ Isaaqa tooge ak rakkam yu baax yi mu dendal sëriñ Abdou sama toog nii sëriñ Amsatu toog nee bokki taalibe yëpp toog kon sëriñ bi moo santaane jataay bi demee nii sëriñ bi kàddu yim mu yónnee dafa delluwaat rek ci tegaat bokki taalibe yëpp ci yoon gën gindiwaat ñépp gën a bëggaat ñëpp gën a dal kenn ku nekk gën a xool fii ñu la tegloo sa tànk foo ko sëriñ tubaa teglu te mooy ci ak jub mooy ci jaamu yàlla mooy kenn ku nekk nekk ca lañ la nekkuloo loo nang ca war a nekke te wattandiku lépp luñ la nekk walla wala du lislaam bëggu ko te sëriñ Touba ni ko sëriñ bi di waxee rek lay yonent bi sallallahu doon digle di ko jàngale mu jóge ci boroomam loolu rek la sëriñ Touba di jàngale loolu rek la sëriñ Touba di leeral loolu rek la sëriñ Touba bëgg ñëpp jaar ci sëriñ mu Mountakha mi itam jàngale waat njàngaleem sëriñ mu tubaa moom rek mooy yitteem kon bu demee nag ba ci biir doxin yi ak ak mbir yi doxe ay lënt di am ay jaxasoo di am ay coow di am war naa delluwaat ñëpp teg leen ci yoon kenn ku nekk xam yoon wa nga war a jaar kenn ku nekk xam na nga war a wattandiku nga wattandiku ko kenn ku nekk xam na nga war a def ci lu baax nga di ci góorgóorlu te tu juñu na ko léegi ñu góorgóorlu ci def lu baax te yàlla tax góor góorgóorlu ci wattandiku ab safaan te yàlla tax sun kem kattan ten du ko seereel sunu borom loolu lépp nag buñ ko dee leeral bëgg li ñuy wax liñ ci mën a xam ñu xam ko ci xam ne sëriñ bi moom ak laabiire ak dimbulee ak teete ñëpp mooy li ne ci moom mooy li ko tax di wax loolu nag i saalu wax ji mooy fan yi nun ñëpp yëg nañ coow lu jëkk ju jóg ci àdduna sëpp te coow la sabab sax mën nañoo wax ne ma nga jóge jóge ca soxna soo ñu wax soxna Aïda Diallo kenn ku nekk am nga ci yëg-yëg kenn ku nekk am nga ci xalaat kenn ku nekk am nga ci métit ci ay wax yu jóg jóge fee jaar fee jëm fii dem nag ba wax ji di metti ci biir taalibe yëpp xoli taalibe yëpp da ci am ñag waaye dem ba wax ji yëpp di sowaat ci sëñ bi gannaaw day sowaat sëriñ bi nag sëriñ bi moom nag jekk day leeral li mu nekk soxna soosu ñëw na fi ñaari yoon sëñ bi toog naa moom ñaari yoon yoo xam ne benn bi teewe naa ko ak ay bokki taalibe lam wax soxna si mooy sëriñ Touba dafa digle santaane bind lim bëggee nag ay taalibeem yi soci moom doxi ni mooy la yàlla bëgg yonent bëgg ko mooy ne ci ak jub ne ci lu leer ne ci lu rafet lu jubut leeru rafetut ñu wàcc ko fa loolu la ko sëriñ bi wax ci njaareem waxaan na ko ca Tuubaa itam dañ màggale ba teg ci ay fan waaye dafa mel ni gindee googu ba léegi des na ay wax di jóg di jaar fu nekk wax ji dellusiwaat ba ci biir sëriñ bi dellusiwaat ba ci biir kër gi ba ci fan yi ñëpp dégg ay wax yu jóg yoo xam ne wax jooju bu ci sëriñ bi waxut dafa mën a jur lu bari ndax bari na ay taalibe yoo xam ne am nañu leen naqare loo xam ne kenn ku nekk yaa ngi xalaat noo saafara sa ba tey ci bëccëg am na ñu fi ñëw ñoo xam ne ba ñuy wax sëñ bi wax na leen ci biir wax ji ne leen na ngeen ànd ak seen sago na ngeen ànd ak seen xel ndax sëriñ ba xeexut xeexluwut waaye ñoom fañ mujjële seen i wax mooy nin la bëggee ñëpp bëggee la nii duñ seetaan dara lu yàq doon seetaan lu yàq yoon wi buñ fi jógee loolu mën daana ko def sëñ bi dalal ne dalee nangu ñoo dal kon nag faawu sëñ bi wax lim war a wax moom ñu xam ne sëriñ bi lii sëriñ Tuubaa wax mooy la ci moom fawut faluwut du ànd ci caaxaan du ànd ak caaxaan dëgg li ci la nekk dëgg lay dëgg digal ñëpp mu ne nag soxna soos ginnaaw nga xam ne dafa jàppee boppam taalibe sëriñ tubaa ñëwoon na ci moom digal na ko li mu war digal taalibe sëriñ Tuubaa yëpp ba nee na soxna Aida ak njabootu Seex Béthio gépp am nañ seen bunt muy sëñ Seex moom sëriñ Saaliwu nañu ca sooy moom muy kilifa ak sëriñ Seex lu muy wax sëñ Seex la koy waxal ñoom lu ñuy wax nañ dem wax ko sëriñ Seex loolu la sëñ bi wax bëgg ñu xam loolu ñëpp dégg loolu ñëpp gëm loolu ne fa sëriñ bi foofu la nekk sëriñ moom wutut waxu may farfar loo waxu may caaxaan waaye dara lu leerul dara lu sëriñ Tuubaa dara lu dëgg doxu ca nékku ca xalaatu ko bëgg yéene na ñëpp jàmm nag ba ku ñëw ba egsi moom boo ko waxee dana la wuyu boo ko laajee dana la tontu waaye wax jaak tontu yëpp nag mooy jaar ci salaatul mustaqim jaamu yàlla ngir yàlla na ko yàlla santaane yonent bi waxee ko ni doon taalibe Serigne Touba te moo wax na ko ci waxam yu bari bala ngaa mën a doon taalibe Serigne Touba da dangay doon jullit àqan mooy li jullit li jullit laaj lépp nga def ko door doon taalibe Serigne Touba. wax na ba tàyyi itam ne ginnaaw dañuy jébbalu di joxe suñu bopp nit ki lu muy joxe. na fexe ba muy lu baax nan fexe ba sun bopp baax ba noppi na doon ko jox Serigne Touba jàngale na ko fi ba tàyyi loolu rek la bëgg ñu di ko gën a xam ñu xam ne fu ñu dégg ay caaxaan wala lu dul noona wala lu jëmul kër lu jógewul ci moom yëgu ko santaane wu ko àndu ca loolu daal la sëñ bëgg ñëpp xam nga sëñ bi daal ci dëgg la nekk dëgg li ngi digal ñëpp nee na soxna soosu ginnaaw ñëw gi day andi ay lëj andi jaaxle andi yàq mën a dem ba andi sax lu nekk ci biir ci biir taalibe yi ñu mën caa jàppandi seen bopp wax dëgg yàlla nag tolluwul noonu sëriñ mooy jaboote ñëpp mooy kilifa ñëpp waaye kenn ku nekk am nga sa bunt kenn ku ne jaar sa bunt sa bunt booba nag moom mooy mooy buntam mooy seen bunt mooy yilif ñëpp coow loolu nag la sëriñ bëgg mu jeex bëggit fu waaye dem yóbbaale ko fa moo tax bëgg ñu def ko jataay bii ñu xam ne sëriñ fii la nekk fi la nekk loo ñëpp kenn ku ne na nga xool sa bopp jéem a jubandi sa bopp jéem a mel na sëriñ Tuubaa bëgg ab taalibe mel ni ku ko deful nag ñu yàgg sa bopp da nga gis sa ndax sëriñ Touba moom kuy làqu ci moom da ngay mel nam bëgg ab taalibe mel ni mu nangul la sax làqu ku ko deful nag lépp loo nekkaat loola ci fekk loola ci nga xam yaa ko yóbbu si bopp Serigne Touba foofu la nekk Serigne Mountakha foofu la nekk loolu jantaane dana ko ñëpp yëg moo tax mu seereloo ko bokkam yu baax yi ne man seen surge bi naa ko wax ñëpp dégg ko loolu may wax ci ndax sëñ bi daa wax ay yoon ne na ñëpp xam ne muy soxna ay jàlloo ak njabootu Cheikh Béthio gépp xam kenn ku ne xam nga Cheikh Béthio ni mu am Serigne Saliou lépp lu mu am Serigne Saliou Serigne Mountakha nag loolee da koy yokk waaye du ko wàññi kon ñoom ñëpp jox leen ndigal dellu ci Serigne Cheikh Serigne Cheikh mooy Serigne Saliou mooy borom kër ga ku bëgg a dëkk ci kër ga da ngay da jaar ci buntu bi dem ci borom biir kër ga borom kër ga dellu si ñoom moom maa nag yéen ci loolu loolu la sëñ bi santaane na ñëkk na ko ñëpp xamee noonu ñu ngi jëbul lépp sallallahu alayhi ngeen jot suñu vidéo nag foo mi wala si biir réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen